أكمت يا أكم باخي بكون يا سا فوزي بما قاب من بسراك يا الله علاك يا عدل داي بخير لقاس ولا maanaam ci misaal jàpp naa ne ci daara yi daara yi waree soon nañ ci mën a jàngale informatique boo ci jàngale informatique nag su boobaa lépp dafa dugg ci biir ndax réseaux sociaux yi li ma wax léegi benn branche la rek ci ci wàllu informatique kon daara yëpp daara yi war waras na cee mën a am ay faculté yoo xam ne faculté yu jàngale informatique la ndax informatique day loo xam ne maanaam àdduna sépp ko bokk doonut loo xam ne amul bari ci misaal barrière làkk wi nga xam ne mooy faral di am Sénégal ci yenn matières yi moom amu ci maanaam kii mën naa jàng alxuraan jóge ca daara ja gën koo maîtriser fuuf ka génnee ca licence nangam wala euh, ka am doctorat nangam ki nangam loolu amu ci kii amu ci amu ci amu ci amu ci amu ci benn rapport misaal mi mooy man mii fa ma koy jàngee fa ma koy fa ma fa nekk boog di liggéey ña fa nekk ñëpp ay kilifa yi lañ ay kilifa lañ ci wàllu njàngum tubaab ak wàllu kii waaye amuñ amut ci kenn koo xam ne xam nga xam nga yëf yi luñ ci bëgg lu ci nekk man maay ñëw defar leen ko ci wàllu technique donc kon loolu lu war a mën a nekk la ci daara yi ñi nga xam ne ñoo ko yor ñu di ci tàggat ndaw ñi ba bu ëllëgee loolu mooy waral suñ demee ba di ko jëfandikoo njariñ yi ma ci doon léegi ñu man ko cee jariñ jariñu ci lor yi ma ci doon tamit ñu man koo moytandi ko su ko defee tamit ñu xiirtal leen ci maanaam ñu xam ca la ca baax la di safaan tamit ñu di ko moytandiku waaye tamit ñu ñu créé ñun tamit sunu système système d'information yoo xam ne day dépendre ci réseau sociaux yooyu mooy xam ci dëkk bi la moo xam ci yoon wi la ci misaal mbooloo yi nga xam ne ñoo am ci yoonu murit bari nañ mbooloo mu ci nekk waroon naa mën a am compte compte ci réseaux sociaux yi moo xam Facebook moo xam Twitter moo xam am chaîne YouTube am su ko defee ci misaal boo jëlee tey académie Minane yi nga xam ne moom lay def jotaay yu am solo yi bu fekkonte ne bii nii mi ngi ciy dawee ci Facebook bi di ko dawee ci Twitter bi di ko dawee ci YouTube bi jàpp naa ne murit bu ñëw tey kon tey jii murit bu connecté bu mu doon bu nekk rek amoo lay di nga am foo war a mën a dem foo war a mën a jariñoo su ko mbooloo mi defee mbooloo mee def ko mbooloo mee def ko ba noppite tamit mu doon loo xam ne lu continuer lay doon mu bañ a doon loo xam ne rek day yem ci benn dure bu récent maanaam durée bu gàtt waaye day doon loo xam ne page la yu ñuy animé tout le temps nga xam ne nit ki su bëggee jariñu su fa duggee rek dana am lu ko fa jariñ ndax faw ñu koy jëfandikoo faw nit ñi dafa dugg beneen ba ci toppit mooy ñu fexe ba euh, maîtriser yeneen làkk yi nga xam ne moom la àdduna bi ñu ëpp di ko jëfandikoo mu bañ a doon loo xam ne day yem ci wolof rek wala bañ doon loo xam ne day yem ci arab wala ci tubaab rek waaye wépp làkk woo xam ne nit ki mën na cee am information ngir mu jariñ ko ñu man cee jaare ñun tamit ngir xamle sëñ bi ci page yooyu nga xam ne dañ koy créer mbooloo yooyu ak compte yooyu nga xam ne individu yi ñi nekk ci yoonu ñi nga fa tey tasaare njàngalem Cheikhul Khadim ba tey tamit ñu créer loo xam ne it dañuy fexe ba maitrise ba maîtriser maanaam information yi ci misaal tey jii maanaam euh, boo xoolee réseaux sociaux yi bis bu ne nga dégg fi ñu ne ñu waxal sëñ Muntaxa loo xam ne waxu ko bis bu ne ñu gis ko sëñ Muntaxa nee na nañ def nàngam sëñ bi nee na nañ def nàngam wala bis bu ne nga gis ñu partagé benn compte compte compte compte bancaire boo xam ne ka koy ka koy wax danaan la ci université bi la jëm te dara amu ci loola nag buñ ko defee yow mi ñëw fi yow mi nekk ci réseaux sociaux bi ñoom ñi ci nekk surtout ñi nekk bitim réew ñooñu duñu am duñu am possibilité mën a xam ndax lii dëgg la wala du dëgg li ñuy def mooy sama classe gi la ñuy gis benn par benn am ñu lay laaj ndax lii wér na wala wérut wala ñoom sëñ Murtada si la léegi nag su boobaa bu fekkonte ne bii ci misaal tey jii créé nañ benn page bu mag a mag a mag ci ci misaal ci Facebook ci Twitter boo xam ne dañ naan xilaafa gi wala xalifa général de mourides moo ko moom su boobaa ñun ñi nga xam ne ñooy waa këram ñu di ko gérer su boobaa lépp loo xam ne loo bëgg a xam lu wér la wala lu wérul la soo ca duggee di nga xam ne lii kat wér na wala wérul lépp loo bëgg a weddi tamit soo ko ca defee dana leer nañ nga xam ne dañ naan page officielle xilaafa kat wedd nañ ko wala page officielle xilaafa gi kat dëggal nañ ko naka noon tamit ñu am ko ci yeneen réseau yëpp naka noonu tamit ñu am ci ndax loolu boo seetloo ci àdduna nit ñu mag ñëpp nit ñu mag ñëpp ci àdduna am nañ ko donc kon ñun tamit kenn gënuñu koo mën a maîtriser kon warees na koo mën a am boole ci it lu mel ne site site internet nga xam ne mooy li gën a professionnel mu doon loo xam ne day dépendre ci xilaafa gi nga xam ne xilaafa gee koy moom ni ñu moomee jumaa ji moomee ko daaray kaamil ak war amee site internet boo xam ne dafay maîtriser information yépp nga xam ne ku bëgg am lu leer ci yoon wi boo fa duggee di nga ko fa gis ku bëgg a gàggante ko ci mbir soo duggee di nga ko fa gis mu leer nañ naññ donc loolu bu fekkente ne bii defuñ ko rek duñ jug mukk ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund saa su nekk mais il faut ñu am loolu taxawal ko ngir mën a maîtriser information ndax àdduna moo toll foofu nekkul ne mbiri àdduna la rek waaye àdduna dafa toll foofu te it ci àdduna lañ nekk te te communauté yu gën a mag yépp communauté yi gën a mag foo ci dem le minimum li mënta ñàkk moom mooy ndax am ngeen sit internet boo xam ne ku bëgg a xam mbir mi ku bëgg a xam yoon wi ku bëgg a xam xilaafa gi ku bëgg a xam sëñ bi fan ngay dugg te fi mu nii ñun ñii boo gisoon tey jii ab gëstukat buy gëstu ngir mu gis ci internet bi lu ko amal njariñ ci yoon wi dafay jafe dangay gis koo xam ne day nekk ca Europe Amérique fu mu doon am benn sujet bu muy gëstu ci sañ Touba waaye ba duggee ci internet bi bu tuddee turu sëñ Touba lañ ko cay indil lu doon dara lu am solo donc kon ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci yoon wi tamit am nañu responsabilité li sëñ Touba bind ñu fexe ba mu dugg foofa ñey gëstu buñ ñëwee fekk ko fa non seulement mu dugg fa waaye tamit ñu def fexe ba mu egg ci làkk yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci àdduna bi yépp ñu dugal ko fa chinois bi man cee jariñu français bi man cee jariñu anglais bi man cee jariñu te loolu lu yomb la lu mën a am la xëy na nos bi moo ñu dese waaye am gi moom lu yomb la da dem ci tubaab yi benn euvre bu ñu ne la ci misaal ñu ne la Victor Hugo moo ko bind ñu ne la livre bi c'est traduit traduire nañ ko cinquante làkk nangam ak nangam te benn téere lay doon ñun ñi nga xam ne nag am nañ sëñ bi te li mu bind ci àdduna nit mësu koo bind waaye gis téereem buñ tekki rek daanaka la ci sëñ Sàmbay defoon li ci dolli ko bariwut loolu it recul la jàpp naa ne ak dellu ginnaaw la ci ñun ñi nga xam ne ñooy ñooy ñoo ciy yëngu ñëpp jàpp naa ne war nañ na mën a am beneen jéego ndax àdduna toll na foo xam ne fi ne taxawaay ci taxaw ci benn taxawaay jot na sëkk am ci yeneen jéego euh, jot na sëkk te it rendre sëñ Tuubaa def sëñ Tuubaa mu nekk koo xam ne ku universel la tamit jàpp naa ne jot na sëkk pour loolu am nag faw ñu taxaw faw ñu taxaw jëfandikoo li nga xam ne mooy technologie de l'information et de la communication buñ ko jëfandikoo jëfandikoowul rek sunu message dana desee jàll ni ñu bëggee sëriñ bi tamit mbiram jàll dana des te su boobaa sëñ bi du weesu diggante Kajoor ak Bawol Euh, ñoom sëñ Murtada borom xam-xam yi war nañ ci gën a gëstuwaat bu baax a baax a baax defaat ci yeneen jéego yoo xam ne moo ñuy dimbale ba ñu mën a yaatal mbirum sëñ bi ba ñu mën a yaatal njàngaleem sëñ bi te it ñu yombalal nu ko maanaam yombalal nu ko ndax léeg-léeg compétence bi dana fi am bu dee ci yoonu murid compétence bi bari na ñoo xam ne liñ man bari na waaye li leen di gàllankoor mooy xëy na loxo ba leen mën a jàppale bañ mën a am loolu loolu moo am ci ndaw ñi rek bari na fi ñoo xam ne li may wax nii lépp lu yomb ci ñoom traduction yomb la ci ñoom créer ay page ay site web ay page ay nangam ay informaticiens lépp a ngi ci yoon wi waaye jafe-jafe bi mooy danañ mën a nosu léeg-léeg waaye buñ nosoo tamit léeg day am loxo boo xam ne moo leen di mën a jàppale ngir ñu mën a am loolu su loolu amul rek jafe-jafe yi da jàpp jàpp naa ne dana fi yéex a juglool te àdduna toll na foo xam ne nag jàpp naa ne kenn ku ci nekk yaa ngi fésal ka nga am te nun defe naa ki ñu am buñ ko fésaloon bu ko ba àdduna dina ko xam te àdduna ku ko xam ku ci nekk jàpp naa di nga ko jublu lii lii jafe-jafe ci jàpp naa ne tey jii nii warees naa mën a am benn jéego ci yi ma wax benn jéego boo xam ne sëñ Seexum sëñ Muntaxa mi mooy mooy taxaw ci kanam ñu seet yi ma wax nii lan moo ci jàppandi pour ñu def ko ñu ne kat léegi kon fii ak ñuy defaat weneen waxtaan wu jëm ci lii danañ gis ne am nañ avancement ci nàngam waaye bu fekkente bañ a yem rek ci waxtaan ak taalix ñu dem waaye ñuy posé ay act tamit ñuy posé ay acte di def dara loolu jàpp naa ne lu lu mat a bàyyi xel la xam naa mën naa tënk foofu kàddu gi rek maa ngi jéggalu waat bu baax a baax ñàkk nosu gi ak yéex gi wasalaamaaleykum wa rahmatullah yëpp ak e, coono yi yëpp feeñut ci biir waxtaan wi ku dégg ni mu waxee nga xam ne lii mu doon wax lu mu xam la comme niñ ko doon waxee ci jaar-jaaram yi xam naa dañuy njëkkanteeg waxtu yi rek e, lim doon waxtaanee ñun ñëpp xam nañ ko muy lu jëm ci wàllu internet bi ak ay njariñam daanaka ci tënk rek bu gàtt a gàtt dañuy wax ne ginnaaw ba mu waxee maanaam taarixu internet fan la bàyyi ko ak la ci aju yépp nga xam ne ay étape la yoo xam ne day mel ne étape bu jot rek day am lu bees luñ ci sosaat lu yees lu ñëwaat ci jamonoom ba boo doon xool sax suñu jamono yi démb la xewoon boo ko doon waxaat tey day mel ne ay ree tey fi ne boo tuddoon ay five ñu bari dañu daal di ree boo tuddoon Skype wala MSN ñu bari dañuy ree ca jamono joojoo mas naa xew kon ay étape la yoo xam ne nii ci la jaar ba ni mu yegsee ci ci tënk nag ci biir waxtaan wi dëgg dëgg dëgg li ci gën a am solo mooy njariñ yi nga xam ne tënk na ko muy ay njariñ yoo xam ne ci côté social la ak ay njariñ yoo xam ne ci côté culture la ak ay njariñ yoo xam ne ci côté économique la yépp rek ci biir internet boo dee xool ci wàllu social gi nga xam ne ci la taxaw te li ëpp ci ñun ñii dañuy gis njariñam yi ak ay loraangeem njariñ yi barab la boo xam ne nii lu fees dell ak njariñ la ci lu jëm ci wàllu biiru ni ñuy dunde comme ni ñu ko ci tàmbali bi rek day mel ne ki yor alalam jëm ca marché ba nga xam ne am na ko fay jaay ngànnaay am na ko fay jaay ak lekk am na ko fay jaay ay koddaay am na ko fay jaay xeetu jumtukaay yu ne yow mi nga xam ne yaay jënd nag yaay xam li ngay jënd ki jënd ngànnaay mën naa am jënd na ngànnaay waaye jubluwu cee lor boppam wala lore ci da cee jubloo jariñoo kon noonu la mel rek kon côté yooyu yëpp la am njariñ kasaalika côté boo ci xool njariñam rek mën ngaa dëppartiwaat gisaat loraange ju bari jum ko amee muy daal jumtukaay la boo xam ne ci ñeenti côté yi nga xam ne moo wër suñ dund gi muy lu jëm ci wàllu social lu jëm ci wàllu culture lu jëm ci wàllu économie xeeti yi nga xam ne moom moo ñu wër bu ci nekk rek internet ak la ci aju da cee fees dell dell dell ak i njariñ bokk na ci njariñ yi rek moom mii doon wax nii waa na nga gëstu ci yoonu murit wala ci waa kër sëriñ bi ca du la boo duggoon ci internet du la jox am mbindam moom tey boo demoon google bind dara ci yoonu murit doo gis ab article faaw danga gis article boo xam ne ñaaree moom moo ko bind moo xam ci wolof la wala ci français la wala sax mu jox la ñoom seen site bi nga xam ne mooy site bi nga xam ne mooy bi gën a taxaw ci yoon yi ca bokk ci ci njëkk it muy site boobu ñuy wax majalis loolu moo waral ñu naan ko sëñ jili ba majalis kon néewaa na nga dugg ci internet bi di gëstu dara dara dara lu jëm ci wàllu sëriñ bi ak lu jëm ci wàllu yoon yi ca doo gis am mbindam wala mbind moo xam ne dafa bàyyi ko seen site bu am solo boobu nga xam ne mboolem téere sëriñ bi ci wàllu mbind ak ci wàllu tradition ay son vidéo yu baree baree bari yoo xam ne nii ñoom ñoo ko doon def ca def gañ ko doon defit defu ngir yàlla la goo xam ne nii bari na ay taalibe yoo xam ne nii jariñu nañ ci rawatina ñi nga xam ne ñoo xaw a sori kon sëñ Abdou Khadir ñu ngi lay sant ci turu mel Minane bu baax a baax a baax ci waxtaan wu jotale wi ci waxtaan wu am solo wi kon xam naa dañuy njëkkanteeg waxtu wi rek day mel ne euh, am na ay mbokk yoo xam ne war nañ fee yëkkati kàddu ku ci mel ne sëriñ alxaaji Fadil Ñang su noppee ah ñu jox Serigne Soda Serigne Soda Ndiaye moom it bokk ci académiyatul Minan di gëstukat lii ñu doon waxtaanee it yàlla def moom it muy mu spécialiste ci lii mu lu jëm ci wàllu internet ak technologie yeeg la ci aju yëpp kon xam naa moom la ñuy jox kàddu gi su noppee Serigne El Hadj lu Niang soo ko jël kàddu su noppee ñu joog a joxe kàddu gu gi. akamta ya فوزي بما قاب من بسراك يا الله ألا يا عدل داعي بخير قاس ولا لله